man am na suma benn xarit mën naa ko citer. c'est le maire de Ranérou. Arouna Ba. am na benn vidéo mi ngi fii ci sama téléphone mën naa la woo sama pare nga déglu ko. mu wax ma ni keroog bi fa ministre bi di ñëw moom moo ko recevoir sept heures du matin. boole ko ak benn adjoint yóbbu ko mu visiter ci parc bi le lendemain. mu toog ba ci ngoon gis ay oto mu ni mais lu xew fii ñu ni ko oto yi kat ministre moo leen yoon yónnee ñuy dem parc mais xamul woon lan lañ doon wuti. le maire. waaw moom wax loolu. Mm-hmm. na mu taxaw gis ay oto mu laajte ñu ni ko dañuy dem parc ba mais xamul lan la ñuy wuti ndekete boobu dañu demoon pour jàpp orix yi. te maire bi yëgul. te li ci gën a garaaw daal ci li ci gën a garaaw nee na ma bi ñu leen doon jàpp. ay booy yu jor Jakarta ñoom la ñu fayoon. loolu sénégalais xamuñu ko te dañ ko war a xam. ñuy dàq orixi di leen dàq dañuy dàq ba mu sonn ba daanu ñu jàpp la. Eba. am na ci benn gos boo nga xam orixi daf ko jam bi jën ba dafa naroon dee. actuellement fi may waxee yow ñu ngi koy faj. waa loolu moom. alors mu posé beneen problème dama wax léegi ni buñ la dénkee dara. Mhm. am nga droit même boo amee droit da ngay seet moral. Mhm. mais droit boobu nag laay posé léegi xam nga lu tax ma di ko posé. Mhm. est-ce que ki dem tey man su ma jigoon tey dem parc aan gis fa ay rabu àll le lendemain ma yónnee pour ñu jëlee li ma ko est-ce que diggante démb ak tey am naa temps wu sur le plan juridique sur le plan légal ma signé benn convention bu nga xam ne parce que loolu aussi état bi am na ko. mën nga signé benn convention ñu abal la ñun la tant d'années lañ la koy abal bu juree nangami yoon lii yaa ko moom lii état bi moo ko da nga koy delloo. Mhm. mais est-ce que diggante démb ak tey ministre. loolu il faut qu'il réponde à cette question là parce que dëgg dañ koy wax. Mhm.